qaalu subhanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal xaliimul xakiim wajaxal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokki jullit yu baax yu tedd yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare ñu ngi leen jaajëfal ñu ngi rafal bu baax suñu ànd ak yéen saa su ci liggéey bi ak it waa gën it woo seen seen bii di talabul xilmil asrar di sàkku ci yéen bu baax ngeen gën di abonné ci chaîne bi tey gën di partage vidéo yi te di ko seet ndaxte am na ci solo lool su ko defee loolu mooy waral ñu leen di gën di indil ay vidéo yoo xamante ni yu am njariñ lay doon ay vidéo yoo xamante ni yu làmbooke njariñ lay doon ñu leen koy baax saa su ne fii ci seen seen talabul Hilmil Asrar ngeen gën di bu baax ginnaaw loolu tey ñu bëgg leen a jàngal beere njaay boo xam ne si nii doo bind doo maas danga koy tare rek yow yow aji kii ji waaw tare rek la danga koy tare moom boo xëyee danga koy tare ki yàlla dogal nag moom mënu koo mënu koo bind comme ça mënu koo tari daal mën na ko bind lu ca làng ba mu dégg moo xam mën a doon mu di ko jàng ba ni mu ko mokkalee waaw di ko jàng comme làng bi mu dégg mën na ko ci bind ñu bindal ko mu di ko jàng ba ni mu koy mokkalee bu fekkee ne mënu ko mokkal bu bind ko ni mu ko xamee rek heure bu xëyee di ko liir heure bu xëyee di ko liir bu di ko liir bu ko liir bu yàggee day dem ba day nekk ci bopp bi en tout cas daal lu ñuy wax la koo xam ne nag wax gi jafe na ko mokkal gi jafe na ko pour am ku ko jàngal jafe na ko bu ko neexee mën na koo bindlu mu takk ka ca place mu nekk fa loolu tamit sañ na ko waaye li si gën mooy mu fexe ba mën koo jàng bis bu set bu fekkee ne kiiwut mu di ko mu di ko mu di ko tiim daal mën na ko bind ci ni nga xamante ne noonu la ko xamee ndax eh, léegi version bu ne mën nga cee jànge bu ko xëyee suba tiim ko ah, buy diglu vidéo bi sax tiim liñ bind da koy da koy da koy da koy gën a mën wala mën na koy diglu sax di jàpp baat yi ba mokkal loolu loolu mën na nekk am ñoo xamante ni mokkal lan mbir te ñu koo xool mokkal lan mbir te ñu koo gis mokkal nañ mbir te xamuñu ci ban teer la nekk la ko waral mooy euh, ñii di ko woyantu wala ñii di ko jàng wala ñii di ko wax ci kaw wax gu bare gi nga yàgg koo dégg say nopp mooy dem nag ba sa sam xel capté ko te doo da ko fàtte li rek yaa ngi koy dégg rek yaa ngi koy mokkal kon loolu lii noonu la mel bayra la boo xamante si nii bayra njaalam lépp njaay moo ko def du taxaw Njaay moo ko def suñu borom mën na cee def tawfiix ba mu gaaw a jeex hmm. euh, bayre nag euh, dafa baax lool ndax nit kii mën naa am marchandise am lu ñëpp bëgg ba pare pour jaay mu jafe ko li war waral mooy jëmmam ji mën naa bañ a neex nit ki ndax am na ñoo xam ne moom amuñu bàyyi seen jëmm sax lu ñuy jaay la kee di jaay moo xam mu neex moo xam mu naqari waaye kooku loolu mooy xëcc ñooñu bañ ñëw moo xam mu sore moo xam mu jege loolu dafa am. am ñoo xamante ni buñ jaayee ba jeexal ba jeexal takk laa nga ñëw ci ñu ñun la jeexal dañuy am déception bu ñëwee dañuy tayyeel a dem feneen te leer na ma sax bitig bi mu taxawalool wala place ki mu taxawalool wala mën na laa wax ne kee am na day mu jaar waaye day tayyeel am ñoo xam ne mën nañoo jël seen xaalis sax la ba nga amaat wala ñun la am boo amee nga njëkk maa kii ko waral ay mbir la yu wér a wér ay mbir yu wér xam nga daa am mbir yu wér daa am te da ñëw bëgg mbir fekk mu jeexal ko. kim taxalool am na ko waaye laa kim taxalool bu ko amul xam nga yow ki nga am wala moom mu wax la ne demal ci diw man ko mën daal yow laay xaar yow lu tax nga jaay ko te te yëgaloo ma ko kañ nga koy amaat mun la suur teel nga xaar ko mhm, loolu dafa am dafa am bu wér kon nit dangay ngay jóg ci sa bopp bul bàyyi sa bopp déedéet jugal ci sa bopp nga fexe eh, bu la kenn gën a saflaw yaram bu la kenn gën a neexlaw yaram bu la kenn gën a law yaram ci kaaraange yii rek ndax nit kii lépp da ko mën a jàpp cat da jàpp liggéey da ko mën a jàpp iñaan da ko mën a jàpp jinne da ko mën a jàpp rab da ko mën a jàpp ngay farlu ci yow doomu aadama yow yaa riis nit moo riis comme ça ñëpp ko soxla kon bul bul woye fa sa bopp daal ay or gi sax nga xam ne dañoo am valeur doomu aadama ñoo leen valoriser ban ba am valeur fu baax la leen di denc place yéen koy jaayee boo demee doo doo bëgg a toog fan koy dugal day nooy népp mel noo xamante ne du yàqu du xoos di def dara lu ko waral or piri baa tax kon doomu aadama la suñu borom defal teraanga joo xamante ni moom dafa war a fonk boobu xam mooy kan hmm. ginnaaw loolu nag ñu uh, woon leen bi nga xamante ne mooy bayre bi mooy bayre bukki bi te ma ànd ak kaaraange bayre bukki bi nga xam ne nii leen koy awee dara bukki te ma ànd ak kaaraange xam naa képp koo xamante ni yittewoo na ko rek bay na ama am doole la bii buñ ko liggéeyoo rek defuñu ci kaaraange suñu ñu lool moo dañ cee defaale kaaraange nii lay mel hmm. bu am doole la képp koo xamante ni yàlla dogal na am ko moom ci say mbir ak yokkute gu yéeme yokkute gu gaaw a gaaw hmm. waaye mbir lu mu am kaaraange am kaaraange am kaaraange na nga fexee muslu ji cat ndax cat dafa doy waar te cat tamit dafa sew cat da lay topp ba sa ñett fa dañuy wax ne lenn bu bu mënoon a dab baatu kun kun comme suñu borom bu nee kun rek mu nekk bu amoon luy dawee comme vitesse bu mel noonu cat leen koy lënkal lënkalil ngir cat gaaw gim gaaw ak sew gim sew hmm, kon loolu man naa bàyyi xel bu baax te dafa existé yàgg ñu ñu boroom xam-xam yëpp wax nañ ci téere yi indi nañ ko kon lu amaam la kon ni ngeen farlu ci cat baax a baax a baax di sangu ci cat di takk lu leen musal ci cat di nëbb sa bopp ngir cat Mm-hmm. ginnaaw loolu bii mooy mooy ñi nga xamante ne dañuy yaakaar muy tas ñi yaakaar muy tas ñi ñu yoreel xaalis di leen ko fay ñii digg di leen nax loo leen wax doo leen ko jox yooyu yëpp bii moo ci aay bii ñu ngi ko ewee deru yeew deru yeew lépp loo wax leen mu fasu xam nga yeew mooy fas mooy fas rek comme saa tàkk ba mu dëgër mooy yeew bii nag lépp loo wax nit ak bépp loo xam ne nit jël na ko ceew yow ci engagement su ko waxee dafay def boo ko amee waaw ku dugg sa place jënd ku dugg sa place jënd loolu nit di jox la ko bu nit bu dee kaf soxla mu la wax dina ko jox loolu nit wax ak yow daal mu fasu ko xam daal koy war ak di ko digg duñ ko jox ak nit ñi yoroo ko bari nangu ñu ko fay yu mel noonu boo woowee nit na ko sama bor ba xanaa doo ko fay bu ne la dinaa la ko fay demal tëdd nelaw bala nga am seddu suur mu wàññi xaalis bi ñëw jox la moo tax lu mat a am la hmm. ginnaaw loolu nañu jàngale li nga xamante si moo ñu tax a jóg képp koo xamante ni bëgg na bay njaay boo xam ne day gaawal am njaayam heure bu xëyee day fexe bu ubbee ba pare hmm, day def bismillahi hëjër hëjër kamaa jara lam tabuur allazina yamsuuna ahlal ardi xëw nan xëw nan xëw nan ñett yoon ngay wax baat boobu wax nasrun minallaahi wa fatahun xaribun wa bashiril muminin teg ci inna ataynaaka al kawsara fasalli li rabbika wanhar inna saani inna saani inna saani ñetti yoon foofu rek nga yem doo ko àggale daal di tifli sa loxo raaya wala ko mu jëm ca njaay maag yooyu def nii yaakaar naa leer na danga naan bisimilahi wax xëjër benn yoon waxaat xëjër ñaari yoon comme noonu la bisimilahi xëjër xëjër تكتي كما جرى لن تبورا الذين يمشون على الارض هونا هونا هونا نيت يون غاي واخ تكتي نصر من الله وفتر قريب وبشر المؤمنين تكتي ان اعطيناك الكوثر فصل للرب وان علي ان شاني ان شاني ان شاني نيت يون غاي واخ فوف رغا يم دو اغل ساري دني wala ci say loxo wala nga wala ko ma ñëw ci njaay lii daal képp ko xam ne soxla na ko lépp lu muy jaay dina jar ñu baamtal leen ko bisimilahi hëjar hëjar comme ça hëjar gi teg ci kama jara hëjar hëjar kama jara lan tabuura allasina yamsuuna alal lardi xawnan xawnan xawnan xawnan yaa xanaa leer na yi ñaari baat da nga ci bamta bisimilahi hëjar هجر نعيون كما جرى لانتبو اللسي يمتو على هونن هونن هونن هونن نينتيون تكي نصر من الله وفتهم خريب وبشر المؤمنين تكي إنا أعطيناك الكوشر فشل لربكوان خري إن ساني إن ساني إن ساني نيتيون غيب فوق والسيلخو رأي سكرم ولغن جمعك جامي جرين جمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته